sa voix du fay léegi euh, bon euh, ñu commencé waat déjà ndax yow yaa moom salon suite beauté massage maa ko moom euh, da ngay exercer en tant que masseuse wala da nga am ay masseuse ci mm, dama am ay masseuse uh-huh. mais yow en tant que tel doo exercer en tant que masseuse dañu am dañu benn plainte man eh ma voilà dañu jot euh, dañu jot benn plainte euh, ci plainte bi ñuy accusé ay fait yu xaw a garaaw euh, kii di Ousmane Sonko di politicien te ki bind plainte bi bi mu ci adresse yi mu joxe yi mu détails yi mu joxe massage bi salon de massage bi la joxe donc mu wax ne mu ngi tudd Adji Sarr que salon bi mi ngi nekk ginnaaw cimetière Saint-Lazare. Mhm. donc bi ñu waree ci lañ gis euh, ah. mu joxe tur bi également suite suite beauty massage. Mhm. donc ñu bëggoon ñëw ñu ñëwoon fii déjà pour am lu leer parce que wut euh, dëgg bi xam fu mu féeteeg yooyu ndax xam déjà euh, comme niñ la laajee ndax yow yaa bind plainte wala bu dul yow est-ce que da nga jot nga dégg wax jooju wala ndax jot wax jooju jot na yegg ci yow ndax am nga employé bu tudd aji Sarr. ak euh, bu fekkee am na également accusation yi nga xam ne moom la def ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yóbbu ko ba euh, porté ko plainte section de recherche ndax jot na ci waxtaan ak yow. d'accord. man maa ngi tudd euh, Ami Diop. Ami Diop. Ami Diop waaw. fa dëkk fii nga dëkk. fii laa dëkk nga juddoo mais man portuma plainte kenn. Hmm. Adji Sarr sama employé la woon fii la doon liggéey. moom depuis quand la commencé liggéey fii. moom liggéey ñëw fii xaw ma fi yàgg tuuti na njëkk na koy liggéey ma arrêté ko après bu ma ko arrêté si la ñëwaat mu commencé waat sama liggéey. ban période la. Hmm? ban période la loolu. mi ngi ñëw fii ay euh, après avant décembre la fi ñëw. la fi ñëw. donc bi mu fi njëkkee ñëw quoi période. bi mu fi njëkkee ñëw période boobu xaw na yàgg de parce que. toogaan na six mois doo commencé waat fii. Hmm. actuellement dafa mi ngi liggéey ak yow toujours wala dafa bàyyi. non non parce que moom jour bu mu waree def euh, heure bi mu def nii parce que fii sonk da doon ñëw ci kër gi. sonk da doon ñëw ci kër gi Sonko da ñëw ci kër gi di maase wu. Hmm. mais Sonko xaw ma ci moom lu bon lu ma xam ci moom buy ñëw benn massage lay santaane. sama ginnaaw day metti bu ñëwee du sax maanaam massage bi seize lay nekk day toog def nii ñu ginnaaw buy ñëw nan bañ a xàmmee ne masseuse xàmmee nañ ko léegi suy suy ñëw day bañ masseuse si xàmmee ko day jël benn yére def ko ci kanamam bu ñëwee bu jëlee def ko kanamam day toog pour massé wu mësuma gis mu massé wu mu mu sumee ko lu ginnaawam lay massé hmm. léegi Adji uh-huh. Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maasi comprendre nga. bu uh-huh. mu koy commencé di maas di maas ba benn jour Adji Sarr am ku mu doon waxal téléphone ne ko man de temps yi damaa damaa aat parce que may man président Sonko. Hmm. kooku ne ko dama bëgg ñu teg ko diin. ah su ñëwatee ci kër gi yëkkati sa téléphone nga woo ma fexe.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 ba nekk ci biir pour préparer wu pour génn xale bu jigéen bi génn téléphone am sonné am ko ko woo benn oto bu ñuul kub si jamonoy couvre-feu la. loolu yaa bii nii bi. Hmm. Eh, non non sinon ko dóor bii passé la. Hmm. mardi bii jour boobu noonu buy buy Sonko dugg ci kër gi ay 22 heures la. Hmm. ñooñu bu ñu gaaree. kon yow sama saisie dañuy fanaan xanaa. waa parce que bi doo fanaan fan nga jëm.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 maanaam massage boo xam ne nii ku dafa sonn wala massage boo xam ne nii pour pour relax la. Hmm. ñaari yooyu daf ñu si àdduna. Hmm. mais mais euh, li nga xam ne moom la li nga xam ne moom la ndaw si ñuy wax euh, Adji Sarr moom la ñu wax ne moom la moom la koy accusé. Hmm. ndax mën comme mën na dem ba yegg foofu euh, est-ce que dafa am client yu yegg yu yegg foofu ak masseuse si wala. loolu amul fii fii institut de beauté professionnel la soo fi dugg si boo dugg si si dëgg da ngay xam ne fii place liggéeykaay la.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 mën fen tey jii yow boo toogoon ak moom sa téléphone dina fexe ba rocci téléphone bi xam na si biir portable. c'est-à-dire que kon professionnel loolu quoi. non non ko jël jàmbur day jël nga jëlaat ko. bàyyi ko bàyyi ko ay audio jàmbur day jël di transférer nit yooyu laa gisoon si moom bu ma pour man changer na ma woo ko xelal ko na ko àdduna boo si nekkee dangay ngay jub yooyu mais. léegi léegi nii nii xamoo ci fu nekk xamoo ci lu mu nekk. non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 mais koro bu Sonko ñëwee wóoluwuma kii nii ñu ngi fii toog maa ko ko demal. yow Sonko buy ñëw avant daf leen dina am faral di leen woone leen mu ngi ñëw. non loolu moom sama vie privée la. Hmm. ay wooteeg yooyu xam nga moom sama moom bi muy def nu mu tudd nii. ci tonifiant tonifiant. Hmm. mooy dëdd quoi. léegi bi affaire bi amee ba léegi tamit amul euh, kenn ci euh, Sonko wala ñu ko ñu ñëw fii laaj leen wala leneen.